They Leibigen, DBT TV, Meneer Leibigen, ana waa Louga loo Louga loo man mi yéen laay bégal ku may ñaanal na ma ñaanal ma dem Madina ku may ñaanal na ma ñaanal ndax ma dem Madina ku may ñaanal na ma ñaanal ndax ma dem Madina Madina laa bëgg a dem Madina laa bëgg a dem man. Madina la bëgg a Madina la fa la bëgg a dem ca taaxi Makka ya ak man laay wéyal DBT TV man de yéen TV ngeen lay wayal ana waa Louga loo Louga loo man ni yéen lay wayal ku may ñaanal na ma ñaanal ma dem ma ñaanal ndax ñaanal na ma ñaanal ndax ma dem madina anta kafe madina laa bëgg a dem madina laa bëgg a dem madina laa bëgg a dem madina laa fa laa bëgg a dem yal na nga dem Madina ca taaxi Makka ya ak man de yéen laay woyal takaafi DBT TV man de yéen laay bëggal takaafi DBT TV man de yéen laay woyal takaafi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأهل الأحد القرد الثمد الذي لم يلد ولم يولد walam yakun walam kufuwan ahad mbokki àdduna rawatina mbokki Sénégal eh, ñi nga xam ne nyom nyom dëkk fii nyambur Njàmbur ni top ko wër ñi topp keppaaru daara ak di leen di leen ñaanal jamm di ko sakku ci yeen di wax ne ak namel amna ci yeen di ran bin émission amul ñi ngi koy jéggel bu baaxa baax xana rek jox kenn nat ci nongal daara ji insha allah mu ibbi jotaayu keppaaru daara yi insha allah ci ñu commencé waxtaan insha allah rabbi bismillah وادي الأول الحمد لله وسلام على عباده الذين Ma'akana lakum antum Bikun syajarah jërëjëf alquran ji neex na te rafet na yàlla yàlla sunu boroom fay la wàcce barke quran ci yow ak ci say wayjur wàccee ko ci jullit ñëpp xanaa di ibbe jotaay bi baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun leen koy tijjee eh, mi kàddu jàll ci ñi nga xam ne sunu boroom dogal na ñu génn àdduna ak fu mënti nekk rekk ñu ngi leen di jaale ñaan sunu boroom jéggal leen ci barke Qur'an di masawoot ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni mbokk eh, tiis woo xam ne jamono ji mën nañ ne kenn ku ne ab tiitaange nga nga toogaale eh, li xew ci réew mi kenn ku ne gis nga ko walla danga ko dégg fa tabaarakallaahu mu nekk ay jëf yoo xam ne xamewuñ ko ci suñu réew mi te gis nañ ne jamono ji dañ ko jàppe ndoxum naan dana am nit ñi ko jëf ba weesu ko te duñu xam liñ jëf moom mooy lan ñi leen wër ci dëkk ba duñ ci xamit lu bari waaye ñu bàyyi xel yàqu yàqu jamono yàq yàq jamono nga xamne ne jamono su yaqo kenn ci ñun mënu ci mucc ak foo mënti nek mënu ci mucc li ñi wax naan jamm ci le lepp xaj kon nañi ñaan jamm ñaan sunu borom defal ñuko waye mu am benn bat buñ ci buñ am ci jàngat mi zëxëral fasaadu fil barri baxri bi maa kasabat ay dinaas ñu xam kon yàq yàq teb jamono jamono ji ñun su dee géej la mën na ni ñu ngi ciy xuus lu lu sori jikko yi nga xam ne moom moo koy waral jikkoot yi nga xam ne moom moo koy ñàkk waral ñaar yi benn bu ne am na ci wàll jikkoot yi nga xam ne moom mooy waral nit ki di yàqu dem ba xoolam nga mën ka cee bind maradul qalb eh, yàqu yàqu teb xol loolu musiba la mooy xolu jullit boo xam ne lenn ab yiw walla lépp lu ñaaw moom amatul ragal ak njort di ko def kon loolu musiba la kon saa su nekk na nañuy nàmmaat ak di yeesalaat jikko yi jikko yët way jur wi wala jur yi kenn ku ne am nga ci responsabilité boo xam ne mi ngi ci sa nodd nga téye ndax bépp ñaawteef ba ñuy jëf ka kay jëf ah am na kilifa ka kay jëf am na fu mu bàyyikoo ko ka kay jëf am na tur waaye suñu seetloo ñaawteef yépp li ci ëpp bokk nekk ay jëf dañuy nekk ay jullit ànd nag ñu nekk réewu réewu jullit kon jullit bi walla jullit yi war nañ xam bakkan bakkanu doomi aadama nga xam ne nu ko sunu borom fonke ci walla xadd karram naa bani aadama waaye doomu aadama ci ci gàtt xelam moom mënul dundal waaye bëgg naa faat bakkan nga xam ne bàkkaar yi gën a màgg nga xam ne dañ naa min azami zunub wa akbarul kabair maanaam kon faat faat bakkan bàkkaar bu màgg jëf joo xam ne kenn xamul noo ko mën a nattale nga xam ne sunu boroom dañuy faral di wax naan man qatala mu'minan mutaammidan fa jazaau jahannama xaalidina fiiha abadan waa léegi kon yow mi faat bakkan soo toogee ci adduna loo war a xalaat ginnaaw bi nga xamee ne ki faatu moom faatu na waaye nag yow mi ko faat ani lan lan la borom bi teg sa kaw ci ab ci ab ab daan ci gàttal nga xam ne jahannama xaalidina fiiha abadan safara goo xam ne fa ngay sax ba faw amatul génne waa kon est ce que jarna fatu na bakkan ci yow julit bi kon yak yak teb jamono su amé dañu wara togat ci askan wi ñi wara wax te am kaddu ñu wax ne te ñeuk moy kilifa diine yi wacc ci ci kilifa aada yi kon ñaari baatu kilifa yi ñoom am na responsabilité bu mag ci loo xam ne moom mooy xew ci réew mi kon waruñoo jug di ñaax ak di waxtaan ak njaboot gi di leen xamal li nga xam ne moom la sunu boroom subhanahu wa taala santaane ndax xamal na jullit bi bépp jëf bi muy jëf war naa xam atte bi kon nag jagam bépp jëf boo jëf atte bi war nañ kaa war a mën a xam kon nag li ngay jëf te mu ñaaw ak lumu ak anam bu mu mën a ñaawee ah kon nañ ci nañ ci bàyyi xel boo seetloo ba tey ci ci baat alxuluq maanaam ci wàllu jukko nga xam ne d'accord nan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko sunu boroom di tagg ci wa innaka la ala xuluqin azim kon jikko jikko moom mooy doomi aadama kon jikko ji su su rafetee rek jëf yëpp dina mën a rafet waaye jikko ji su ñaawee pour jëf mën a rafet lu jafe lay nekk kon ñun ñëpp dañuy andat àndaat la jukko yi bu lepp yeesee nak ñu and jëm ci jukko bi nga xamné ne moom wax baatu muñ as sabr muñ limi waral ba muñ lamii ñaka waral ki mënta muñ moom jëfam dina ko yóbbi lu ne waaw muñ nañuy xool ñun ci suñu biir muñ nit saaga la loo njëkk xalaat man damaa war a fayu déedéet ëpp nit doole di ko ko wan loolu bokkul ci muñ nit tooñ la nga war ko mën a baal baaloo ko yaa ngi xool yow nooy fayoo na pexe te suñu xoolee jëf yu ne jëf bumu sabab ba fa muy mujje bu nu xoolee ba ci biir la koy waral maanaam mooy tooñ kon su la tooñee nga mën a baale baaleel ndax soo baalee am nga tiyaaba kon nañuy rafetal jëf yi bu ñuy topp seytaane yow mi nga xam ne aji tooñ nga fexeel sàmm sa bopp ba la nga nekk di tooñ nga xam ne tooñ moom baaxul bu teyee sax mag ñi wax naan tooñ du gàllaaj waaye tamit ñun ci suñu biir nga xam ne ñun lañuy wax naan ay jullit lañ ñun ñoo jullit ni sunu boroom wax la wala taqatulu nafsa allati xarama bil xaq waye ñun nak manam baatu haq yi bu nu seetloo mën na ni amutu fi kon nak est-ce kon am na droit di reyati ab bakkan kon yoy yep ñun war nañ ci poser wat question ci suñu bop di xol ñun an waru way lañ ci wara jël waye batayit li xew ci jamono kilifa diine yi walla sëriñ daara yi walla ñu mel na ñoom mooy ñoom ñu bàyyi xel ne dañoo bokk ci dund gi dañoo bokk ci jamono ji kon am nañuy kàddu pour war ciy wax ndax kenn ku nekk ak la mu tollool ñi nga xam ne ñoom tollu ci wax ñoo toll ci jëf mii ñi nga xam ne ñoom la borom dogal ñiy sol toni amaana ñoom foo ñu dégg ab jéeya nga daan fa dem def seen taxawaay kon nag ñi toll ci wax nga xam ne soo waxee ñi ëpp ci nit ñi déglu la ànd ak déggal la jëfe la nga wax kon nañ ci bàyyi xel gën cee farlu waaye ci xadis mi ngi ñuy xamal ne kullul muslimin ala muslimi xaraamun dammuhu wa maaluhu wa irduhu kon yi nga xam ne dafa araam ci jullit bi mu koy jëf ci kaw moroomu jullitam kon dañ ko war a xam mën ko bàyyi kon su amee rek réeroo du am waye batay yow mi nga xamne ne aji fat bakkan nga sunu borom mi ngi lay wax nan ci alquran man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka annama qatala nas jamia Legi yow mi nga xamne ne danga fat ben bakkan sunu borom neena na dafa ne danga fat nit ñi ñepp faj at na ma qatala naasa jamia ndax bakkan bi nga faat xamoo ñaat at la waroon dund ñaata njaboot la waroon am ñoom seeni njaboot ñoom seeni njaboot kon xamoo ñaata bakkan nga faat yow yow mi faat kon ñun ñëpp nañu yeesalaat jikko yi nañu sàmmaat jikko yi nañuy waxtaanaat njabot gi ba yi nga xamne ne moy xew di ñaawteef ñu fexé mu gennat ci aduna bi waye tamit bu ñuy daj di ñaan ndax addu'a u mu'min ñaan la jullit bi am jamono ci tollo fi meun nga moytu baxna waye del ñaan ndax amul sikki sàkke ne ñaan amul lum mënul kon bu réew mi tollee fii ki mëni kaamil ah ne dafi ay kaamilam sëñ daara yeega moom nañ dafiy kaamil di ko yéene réew mi ki mën ay dog ak i xaleem def ay dogam di ko yéene réew mi ki mën a jàng leneen tamit nga jàng ko di ko yéene réew mi kon lii mooy li nga xam ne xëy na buñ ci sukkandikoo jéem ko doxal réew mi dina mel dañ ko bëgge par des fois sax ñiy wax daan dañoo war di amal loolu ñuy wax peine peine de la mort am na am na solo nag am na solo lool jëmmi amal ko waaye kay dañoo waroon fexe maanaam bannekat nan fexe sukkandiku ci lislaam atteb atteb lislaam te ñuy bañ di coqati fii ak fii di ko doxal e, ndax tey jii sunu boroom wax ni la ni sàcc li nga xam ne moom moo war ci moom ci asaariqu asaariqatu ki nga xam ne maanaam moom mooy njaaloo lan moo war ci moom ci azzaani wa zaaniyatu fajlidu kulla waxidin minhuma miata jalda waaye nag maanaam aji rey ji li war ci moom ah an nafs bin nafs wal ayn bil ayn wal usn bil usn waaw wa sinn bi sinn wal juróoxu nag xisaas kon suñ tënk woon ci lislaam rek kon jafe-jafe du am kon kii sàcc dana bàyyi sàcc waaw maanaam kii njaaloo dina bàyyi njaaloo kii rey même ki reyul kii jàmm rek waaw wala ki fokk bëtub jàmbur moom su ko wóoree ni dañoo war a fayu ci man ah du ko def kon charia buñ ci dëppoo woon rek kenn du sonn am na ci yenn réew yi tey soo fa demoon mën nga teg sa matériel fu la neex ànd kenn du ko laal waaye tey jii suñu réew mii boo amoon lenn rek lu ndaw teg ko ci teg ko ci mbedd mi ni santuloo walla wala leneen duñ ko fa bàyyi waaye xam naa fi ñuy ñëwaat tamit mooy ñuy fexe di am sutura sutura ci sunu biir nga xamne rew mi daf ko manki lo xamal sa morom wer ko ci leneen ana sutura te nag la ngay la ngay bëgg wer ci sa morom moy moy la ñaaw la way li rafet mom kenn du ko wax dañ kay jëm neub neubul kon kay ne sutura te hadith bi day wax naan man satara musliman fatarallahu fi dunya wal akhirah. Li kay xana xana neex sunu borom wala hadith bi waxna ni kep ko xamne da danga sutural sa mbokkub julit sunu borom sutural la fi ci aduna ak akhirah kon sutura nan koy faral di amal ci suñu bir loolu la faral di wax nan bammelu bammelu bir waaw kon dañuy am bàmmeelu biir ak di nëbbalante lu ñaaw kenn ku nekk su doon loo xamal nit ku lu ñaaw wax ko xamal na yow mi koy wax am nga sa lu ñaaw lu baree baree bari luñ la xamal te nekk xam waxuñu ko kon nañ ci bàyyi xel ci anamu jëfin yi nañuy nëbbalante sutura nañuy faral di lebalante njekk ndax loolu mooy lépp xanaa di ñëwaat ci leneen loo xam ne xëy na moom jamono ji jaaxal na jaaxal na ñëpp sax mën nañ ko tuddee mooy liy xew ci tali bi nga xam ne moom it daanaka maanaam doo toog ab fan déggoo ab soog ci tali bi mu me nekk yu metti lool waaw yu metti lool lool sax waaye loolu lépp ñun ci sunu bopp suñ ci amoon ay taxawaay rek yooyu yëpp mën na mën na saafarawu defe naa fan ni paase démb xaw ma ba bërki démb gis nañ ci kenn koo xam ne yor na L200 di dawal dawal lu ko neex na ko neexe ba mbëkk benn ab ab oto waaw ya, loolu kon musiba la kon ba tey su fekkoon ni yar yar sunu bopp tàggat jikko yi yu baree baree bari mën nañ ci mucc la ca gën a ëpp doole ci jikko yi mooy xol bi par des fois suñuy xol ma ngi mel na man suñuy xol mooy xat bàgg ci lool ya, waaw suñuy xol dafay xat te xol bu xat nag mënta ànd ak muñ waaw kon nañu fexé yaatal xol yi and ak di bëss xol bi di mëna muñ ndax fil majalisi fafsaxu yafsaxillaahu lakum sun kay wax defé naane kenn ku ne mën nga sé gis boppam chauffeur bi ak lu way di mëna liggéey rek la ngay nek so nango muñ ak nango yaatal sunu borom dimbali la defal la ab kàttan koo xam ne doo ko doo ko réccu kon yii nii ay jëf la yoo xam ne ñun ci suñuy bopp war nañ ci di ci bàyyi xel ginnaaw bàyyi xel géet ñu bàyyi xel ne bu doon dañuy toog rekk di bàyyi xel bàmmeel wala bàyyi xel armeel wala bàyyi xel ki faatu jàpp naa du jar ñi ñuy waar kenn baa di wax leneen domaine yi ni ndax ñun ñëpp kenn ku ci ne amul sikk sàkka bis dana ñëw ñu sang la sang la jullee la sul la waa ban bis la soo ko xamee wax ma kon kay rekam xamuloo ban bis la ak fan la nan la naka la kon lépp looy bañ dee fekk la ca bul ca nekk te jamono ji ni yakarna amna ci yenn ci ci ci yo xamne ne ci aji faatu ñi la nga xamne ne kenn ku ne war nga yeddat ci sa bop ci lepp loy bañ de fekk la ca fexel ba bul ca nek wala nit ki faatu ñu kay tegal yenen te fekk lolu nekul lu diine loolu musiba la musiba ki faatu ñu koy tegal leneen loo xam ne nekkul lu diine gërëm loolu musiba la kon donte ki faatu moom faatu na ba noppi waaye nag kon yow mi faatoogul bàyyil xel soo faatoo soo faatoo waaw eh, dan naan ki faatu nañuy wax ci moom lu rafet nan koy seedeel lu rafet ah waaye nag bu yëpp amee ba noppi jëfi ki faatu yi ci fekkee moom daa doy waar ah kon nañuy rafetal jëf yi la ñuy jëf nañ fexe mu neex suñu boroom la ñuy jëf na nekk diine la jëf na rafet te ñuy bàyyi xel ci àdduna bii nga xam ne dan naan ñetti fan la tey suba ak ginnaaw suba ci ni ko mag ñi di misaale kon ñetti fan moo dund gi yaakaar naa ne man mii di wax démb weesu na maa ngi ci tey suba xaw ma lii xew ah suba xaw ma lii xew kon yow miy wax walla yow mi ñuy gis yow mi ñuy vidéo yow mi ñuy fréquenté ëllëg yow lañuy defal sa photo def ci rip ëllëg loolu ban bis lay nekk ak ku la koy defal kon nañuy bàyyi xel ci jëf yi nañuy rafetal jëf yi xam naa lii rekk lan doon dénkonte ak mbokk mbokk yi ah, xëy na xam-xam bu gàtt rekk ak yenente yiw moom moo ko waral waaye toog fii rekk doon def fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin loolu moom moo ci nekkoon waaye daa mel ne eh, yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp sunu boroom gën ñu xiir ci boppam waaye tamit lépp loo xam ne ak jëf la bu rafet nañ koy gën a rafetal lépp lu ñuy jëfit te bu nekk jëf ju ñaaw nañ ko fexe bàyyi waaye du ñu def émission mukk ba ba pare te dina yóbbu kilifa yi ci sañ tal sëñ Njaga Mbay sëñ Ibrahima Daraame ñu jëpp waa Raabita bi ñëpp waaye tamit fàttewuñu ci émission bi ñi nga xam ne ñoom lan bokkal liggéey bi waa Lajnatu Shabaab ñoom it ñu leen fàtte sunu njiit Oustaz Alioune Ngom Cheikh Mbay Seck yóbbaale ñëpp rek di leen ñaanal jàmm am mbégte lool ci ni nga xam ne ñoom ñoom lañuy taxawee liggéey bi ba kenn ku nekk mën a am taxawaay yu yaatu lool waaye ba tey duma fàtte ci maske ci ci massawu li nga xam ne xëy na gis nañ ko deux fois wala trois fois mi dal seen daara yi mooy xëy suba sab sab ndonga faatu gis nañ ko deux fois jàpp trois fois waaye ñu ngi leen di massawu ñoom sëñ daara yooyu noonu ba tey di di xamal wajur yi ak di xamal jullit ni ñu bàyyi xel sëriñ daara bi kër la yor sëriñ daara bi nit la kon ni nit mën a xëyee suba faatoo ci këram noonu la nag mbit nit mën a xëyee daara ja faatu kon nañuy rafetal xalaat yi nañuy rafetal xalaat yi waaw rafetal xalaat yi nañ ci bàyyi xel su ko defee ñi ngi masaw ñépp rek te saa su nekk ñi ñaan jàmm dañuy faral di wax naan kenn ku nekk soo jàppee ne man maa tooñ sunu borom ànd ak jàpp ba sell kurus ndax astaghfirullah astaghfirullah téeméeri yoon soo ko mënee baax na di ko def soixante-dix fois soo ko mënee baax na soo noppeet di lu ci yenente bi moo gën a baaxati kon nañuy fexe fóot xol yi alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu ngi leen ci gën a ñaax di leen ci gën a bàyyiloo xel ñu ngi jéggalu ñëpp rek ci gàttub fasaaxa ci gàttub xam-xam di ñaan sunu boroom nangul ñu suñuy jaam sunu boroom gën ñu xiir ci boppam boroom bi sàmmal ñu réew mi sunu boroom sàmmal ñu àdduna bi ñi ngi ñep wa ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. dama ñaanal ndax nga dem madina anta kafe madina laa bëgg a dem madina laa bëgg a